برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نينام تجي بوليتيك نيو جيتا جي بوليتيك بي دنيو dañ ñoo jiite rek. waaye gënuñ ñoo bëgg loolu senegal waaye gënuñ ñoo bëgg lu ëpp Sénégal. bëgg ñoo bë gënuñ bëgg. gënuñ ñoo bëgg. Sénégal dooleeku. Sénégal dooleeku. gënuñ ñoo bëgg. gënuñ ñoo bëgg. Sénégal am xam-xam. Sénégal am xam-xam. gënuñ ñoo bëgg. gënuñ ñoo bëgg. Sénégal am alal. Sénégal am alal. loolu yëpp bëgg nañ ko pour Sénégal. loolu yëpp bëgg nañ ko pour Sénégal. ndax Sénégal. ndax Sénégal. réew mu réew réew mu réew mu neex la. réew mu neex la mu jàmm la. réew mu am jàmm la. réew mu am jàmm la. yàlla bu fi yàlla taal fitna. yàlla bu fi yàlla taal fitna mukk yaara bi. addina bi fi mu toll ci jafe-jafe. addina bi fi mu toll ci jafe-jafe. addina bi fi mu toll ci ay sew-sew adduna bi fu mu tollu ci ay sew-sew te nit ñi fetal rek mom lañ gëna a yàkkamti te nit ñi fetal rek mom lañ gëna a ko xam loolu ku xam loolu di nga ko bu baax di nga wotale ko bu baax di nga wotale ko bu baax ci rew di nga wotale ko bu baax ci sa rew bala nga fee dugal ño xamne ne balaa nga fay dugal ño xamne soxla wo len soxla wo len te buñ fi duggé dootoo leen mën a génne te buñ fi duggé dootoo leen mën a génne sen fetal lañ am sen fetal lañ am ak seen bal ak seen bal ak sen xaalis ak sen xaalis musiba loolu musiba loolu musiba rek lay taal rek lay taal yàlla bu ñu ci yàlla dugal yàlla bu ñu ci yàlla dugal xale yii xale yii yéen a moom seen Sénégal bi yéen a moom seen Sénégal bu ngeen ko fontoo bu leen ko fonto bu leen ko yak bu leen ko yak fonk len sen Senegal fonk len sen senegal senegal moy dekk moy fonk nit senegal yi senegal fonk senegal moy fonk nit Senegal, yi fonk senegal Séné fonk senegal moy fonk moy fonk nit ñi nga xamne nit ñi nga Gor gor góorgóorlu nañ góorgóorlu nañ ba tabax Sénégal ba tabax Sénégal tabax boo xam tabax boo xam ci diine ci diine aduna bi yu bari ñeenañ nañ ci aduna bi ñu bari ñeenañ nañ ci mébét nañ pour mel ba léegi mébét nañ pour mel ni Sénégal. loolu yàlla may nañu ko ci Sénégal. loolu yàlla may nañu ko ci Sénégal. bon nag Sénégal googu. bon Sénégal googu. Sénégal gu neex googu rafet googu. Sénégal gu neex gu rafet googu. <coughs> bu leen ko yàq. bu leen ko yàq. ci ay théories yoo xam ne. ci ay théories yoo xam ne. ay tubaab yi rek ñoo ko fi tëral. ay tubaab rek ñoo ko fi tëral. te ñooy ñooy suñuy noon. te ñooy suñuy noon. fuñ tardé rek ñoo ñu fa tardé. fuñ tardé tubaab yooyu ñu fa tardé. fuñ ñàkk a àgg rek ñoo ñu fa ñàkk a àgg. fuñ ñàkk a àgg rek ñoo ñu gàllankoor ci àgg fa. ñooñu tëral nag ay théorie naan leen jaar leen fii. buñ ñëwee tëral ay théorie naan jaar leen fii. su ngeen di àggee fa geen bëgg. su ngeen àggee fi ngeen ngeen di àggee di àggee fa ngeen bëgg àggale fenn te loolu mënuñoo àggale fenn xuloo xeex noonoo bañante mënta àggale nit fenn xuloo xeex noonoo bañante mënta àggale nit fenn nañu yàlla tëralal yoon bi nga xam ne yàlla nañu yàlla tëralal yoon bi nga xam ne te jubal ñu si te jubal ñu ci te saxal ñu ci te saxal ñu ci loo xam ne dinañ ca danañ ca fekk dëgg ba nga xam ne danañ ca fekk dëgg danañ fa fekk suñu bopp danañ ca fekk suñu bopp danañ fa fekk xamante danañ ca fekk xamante danañ fa fekk xam suñu Sénégal gu cher gii danañ ca fekk xam suñu Sénégal gu cher gii